L'Airly TV, la lumière du Coran et de la Sunna. Abonnez-vous. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد بokki julit yi ma ngi denk sama bop ragal yalla di len ko denk nu xamne nogi ci mujuk shahru ramadan al mubarak lol warna tax kon yok sunuk farlu yok sunuk gor gorlu ci lepp lo xamne top ndax kat gan la mujj ca ngan ga rek loola lay jàpp loola lay nettali gan bu ñëwee ci njalbeenam nga mane ko gan lol waaye gannaaw bi nga mujj yokkat mujj yitteelatu la ba mu dellu ca noona boobaa loola lay jàpp ñu bari ci weeru koor bi njalbeen gi rek lañ ci taxaw yenn taxawaay nga gis jàkka yi di fees ci naafila yi ñépp woor waaye buñ demee ba ca kanam rek nga gis ñenn ñi di dellu gannaaw te ak mujj nag mooy li am solo ci mbir ab course moom bokk ca départ ba waaye bokk ca arrivé ba du tax ñu limaale la ca ñi nga xam ne nañ ca course booba nga ne rek bokkoon naa ca départ ba ci mujjug weer wi am ay jaamu yàlla yuñ ci yoonal yoo xam ne day dolli ngëm yàlla day dolli ragal yàlla la ci jiitu mooy dundal guddi yi fukki fan yu mujj yii nu nekk di dundal guddi yépp ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daana ci farlu ci jaamu yàlla ci fukki fan yu mujj yii loo xam ne daawu ko def ci yeneen jamono yu bokkul ak moom Aïcha radiallahu anha mi ngi wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni mu daan farloo ci fukki fan yu mujj yi daawu ko farlu ci yeneen jamono yu bokkul ak moom yonente bi sallallahu alayhi wa alihi sallam bu daan dundal guddi fukki fan yi ñu xam ne guddi fukki fan yii moo gën ci mbooleem guddi at mi mbooleem guddi at mi fukki fan yii seeni guddi ñoo gën ci mbooleem guddi at mi bu dee bëccëg yi moom bëccëg yi jëkk ci weeru tabaski fukki fani weeru tabaski bëccëgam yooyu moom moo gën mbooleem bëccëg yi mbooleem bëccëg yi nekk ci ramadaan sax moo leen ëpp tuyaaba waaye nag ramadanum ay guddi la ko gën le ndax alquran mi ci wàcc borom bi ne inna ansalnaahu fii laylatil qadri ci guddi ga la ca wàcc waxal ne inna ansalnahu fi laylatin mubaraka maa ko wacce ci guddi gu barkel kon ramadan lepp mag waye nak mom ay guddem mo gëna mag bu de weeru tabaski wi mom fukki fan yu jëk yoyu momit lepp mag waye mom ay bëccëgam mo gëna mag kon lañ ci farlu bu baax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko daan dundal da koy dundal ci mbollem xéetu jaamu yalla yi dana ko dundal ci julli dana ko dundal ci jàng alquran dana ko dundal ci tudd yàlla dana ko dundal ci sarxe daana ko dundale itam ci lixtikaaf bokk na ci ngëneeli fan yii ci la ñu dàkk laylatul xadr ndax ñu nekk li jële ko ci aïcha radiallahu anha mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dàkk leen guddig laylatul xadri ci fan yu tol yi nek ci fukki fan yu mujj Nyar fan yu tol yi ci nek muy ñaar fukk beeg ben ñaar fukk beeg ñet mel na guddi gi ñu genné ñaar fukk ak juroom ñaar fukk ak juroom ñaar ñaar fukk ak juroom ñet guddi yoyu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na na ngeen farlu ci di ci tak laylatul qadr. donte nak diko dak ci guddi yep rek ndax gënaaw gennul wër wi te wër mom lu gatt la bu dee guddi gu nekk rek nga jàpp ne mooy lay xadri la chaque année da nga dajeeg moom te ku dajeeg moo benn yoon rek sax sag taxee mën na caa sababoo ndax guddi goo xam ne moo gën junni weer te junni weer juróom-ñetti fukki at la ak ñett yu tegal ñeenti weer te waxul leen ñoo tolloo de waaye daf ne moo leen gën guddi gi moo gën junni weer yooyu gën nag boo xasee wax lu mu ko gën a kenn xamul fu mu ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam kat limu mu nit ñi bari na lool waye mëno wésu mo leen gën mo leen gën rek nga mëna wax kon khayrun min alf shahr mo gën junniy wër té junniy wër tollok at yoyu té at yoyu dund ko yombul boko dundé itam lepp nek ak jaamu yalla lool mom du ni ndax ak ngone dana nek ci biir ay feebar dana nek ci biir ak télé ki galankor daan nek ci biir waye juroom ñett fukki at ak ñett yo xamne lepp ci jaamu yalla nga ko def tem na guddi gi gën kon guddi gogu jarna na guddi weer ko yépp sax nga fanaanee jaamu yalla ndax rek nga dajé guddi gogu donte benn yoon la rek am tuyaba ci tol nonu lolu suñ borom rek mo xam mu toll yonente bi sallallahu alaihi wa sallam bokku na ci limu daan dundalé fukki fan yi moy l'i'tikaf l'i'tikaf nak ak jaamu yalla la go xamne ñu bare bare bari xamuñu ko sax wala buñ ko xamé mësuñu ko def té moy am sa waxtu lo ci dag dem ca jakka ji fété fa ngir di jaamu yalla la ci gëna neew nak moy ab bis guddi ak bëccëg mo ci gëna neew la ci gëna bari nak mi ngi aju ci la la sa waxtu may waaye fa mu gën a baaxee nag mooy ci jamono bii fukki fan yu mujj yii ci weer wi ku ko may ku ko sab liggéey may sa waxtu may la ko nga mën koo def tuyaaba ju rëy la yonent bi sallallahu alayhi wa ko def defu ko ci koor yëpp nag waaye am na koor yu mu ko daan def yoo xam ne ca jàkka ja lay nekk ba fa xëyee dem julli ci korite doo ko dellusiwaat këram kon l'intikaaf mooy loolu jàkka rek nag lañ ko mën a def boo fa nekkee itam nag ak jaamu yàlla nga fay nekke ci ngay jeexal say waxtu guddi ak bëccëg yi du tee da nga nelaw bo bëggee nelaw bu waxtu julli jotee nga génn ca mbooloo ma julli bu ñu noppee nga duggaat fa nga nekk loolu itam kum jàppandi bokk na ci li ñuy dundalee fukki fan yu mujj yi yëmu rek nag ci koor waxtu ko nit ki mën a defee ci admi rek baax na nga jël bis boo xam ne rek wala ñaari bis wala ñetti bis yoo xam da ngay féete ca jàkka ja yobale la ngay soxla wala bok ñu dila ko fa andil nga xamne bo fa xare nek rek do gennat ludul dul dom adama rek mo lay taxa genn waye do genn di dox yeneen yitte su ko defé nga def fa ñett fan yoyu ci ak jaamu yalla loolu lu bax la ci yar bakkanu dom adama ñettel ba ci li ñuy dundale fan yi ñu war ko def di ko koor gi moy ne genné zakatul fitri asakay muddum koor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faratal na ko mu nek so so ñenti muddu la muddu moy sa barki loxo ñaari loxo nga duy ko ba mu Boko boo ko defee ñeenti yoon loola mooy tudd loolu biñu ko naté ci loxo yu digg doomu dana mat 510 grammes kon ñeent yi boo ko day nek ñaari kilo yu tégal 40 grammes waye boko defé ñaari kilo libar baxna boko defé ñett kilo yi baax way ñaari kilo yi dal, na tegal mom tuuti 40 gram yoyu boko ko bam doon sax euh, genn wàll libar wala libar itam day gëna a baax ca la ëpp ca lañuy dundé ca fa nga nek mo xam dugub la wala ceeb la wala dal la ëpp ca lañuy dundé ca barab ba so gëné xiimab loola itam donte yenn borom xam-xam yi dañuy wax né faaw nga joxé dugub joju ñam woowu waaye itam nag lañ ca jublu dëgg mooy miskin bi am lu mu dimbandikoo ci bisub korite bi te loola ci li mu gën a jàppandee mooy sax buñ ko ko defaloon xaalis nga xam ne dana mën a jënd yamuy soxla yépp ndax léeg kat buñ leen joxee dugub jooju wala ceeb boobu dañ koy jaayaat di ko jëndee la nga xam ne moom la ñuy aajowoo te léeg-léeg njëg gañ koy jaayee du mataab sax lam waroon a jar kon daal ñaar yooyu lu ci jàpp nit rek bu ko defee baax yonente bi sallallahu alayhi wasallam faratal na ko ñu génneel ko ab jaam dana ko génne as gor dana ko génne wala dañ ko ko génneel góor ak jigéen mag ak ndaw danañ ko génne bala ñoo génn di dem ci jullikaayu yu ba yonente bi sallallahu alayhi wasallam faratal na ko ci mbooleem ndaw ñi ak mag ñi ba ci liir bii doog a juddu sax dañ ko koy génneel bu dee ab ëmb nag boo xam ne Judo moom warut waaye bu ñu coobaree woo génneel ko itam ba tey baax na waaye su fekkee juddu na nag lu jiitu jant bi di soog ci guddi gi nga xam ne ëllëg mooy korite bu ci juddoo rek bu boobaa danañ ko ko war a génneel ndax bi muy war fi la ko fekk su jant bi soo ba noppi nag ñu ne la korite mu judd ci guddi googu warul ci moom ndax bi muy war fekk ko fi buñ ko génne itam nag dana baax waaye warul koo xam ne ci guddi giñ na suba la kori la judd waaye bu dee ci bëccëg bi nag ñu ne ngoon lañu séentu weer wi ku judd ci bëccëg boobu kooku des na ku ko génneel danañ ko génne kon bala ñu julli ji ayit bu fekkee jàpp ni la aayu itam nag nit ki jiital ko ñaari fan wala benn fan lu jiitu kori gi ndax miskin yi man koo jot mën a teel a waajal seen bopp ñoom itam ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne dagay leen di jox loo xam ne mooy tax duñu ñu soxlaa laaj kenn ci bisub karité bi danañ am lu ñu mën a waajale seen bopp ndax eet gi dañuy bëgg ñëpp bokk ko feet goo xam ne jullit ñëpp ne tey feetu julit ñi la moo ñu ci génne loolu di jox miskin yi te na dana laabal itam nak ki doon woor ci rëcc rëcc yi mu doon def ci biir koor gi loolu sakatul fitri boobu muy asakay dum koor mi dana ko laabal jaamu yàlla farata foo ko defee boo ci tegeeg naafila naafila ga day mottali la ca manqué woon kon joxe googu ñuy joxe asa zakatul fitre day li rëcc rëcc ak manqué manqué yi amoon ci biir koor gi bokk na ci jaamu yàlla yi ñuy mottalee weer wi itam nag mooy suñ ne weer wi feeñ na nga tàmbalee di wax allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walilahi alhamdu loolu suñu borom moo ko wax ne su ngeen matalee weer wi na ngeen màggal yàlla wali tukmilul iddata wali tukabbirullaha ala ma hadakum wa laallakum tashkurun na ngeen màggal suñu borom tabaraka wa taala ci tawfiq gi mu leen defal ngeen nekk ay julit mu defal leen tawfiq ngeen fekke weer wi mu defal leen tawfiq ngeen man koo woor mu defal leen tawfiq ngeen woor ko ba mu yegg loolu rëy la loolu jar na sant suñu borom tabaraka taala ci magal kabbar yi kon mi ngi tambali ci bu jant bi so ci bis bi nga xamne ci lañu ñuy séntu weer su na su fekke na kon weer wi jeex na su feeñee rek weer wi jeex na guddi nak kon muy guddi korite ci ngay tambali rek diko wax sa yu ci sa xel demee rek nga wax ko guddi gi ak sa bo xëyee boy julli ji diko wax bo eggee si jullikaay ba itam toog di wax ba iliman dugg si di julli si ayit nga doga a bu boo wax nak bu fekkente ne du ca jullikaay ba ci yoon wi la ci mbedd ye ci marché yi dañuy bëgg ñu wax ci kaw na sahaba yo bu ma jot dañuy genn ci mbedd yi di wax ci kaw ngir bëgg ni ci dégg ko ba man ko def ndax ñu bari dañuy sàggan ba fàtte di wax allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah والله akbar allahu akbar والله الحمد di wax ca kaw ngir di feejal taaru lislaam ak di màggal suñu borom waaye bu jigéen ñi nag moom danañ ko wax waaye dañ koy yelu dañ koy wax ndànk juróomeel ba ci li ñuy mottalee weer wi mooy nag jullik ayit yonente bi salallahu alayhi wa sallam digal ñi ba ci jigéen ñu ndaw ñi sax nga l'islam daaw leen digal ñuy génn waaye bu dee ci bisu ayit bi moom bëgg nañ ñu génn ba ci jigéen ñi nga xam ne sax dañoo gis baax dañoo bëgg ñu génn teewa yiw wa teewa itam ñaan yi julit ñi ñaan waaye nag bu ñu demee dañuy beru bu fekkee ci jàkka la ñuy julee duñ dugg ci jàkka da bu fekkee jullikaay la rek boo xam ne itam bayaan la fa nit ña nekk dañ leen di xaw a beru tuuti dañuy xaw a écarté wu tuuti xaw a beru nit ñi ndax barab bi ñu jullee it donte du jakka itam atteb jakka la yor ba tax na lu ñuy tare ci jakka rek dañ ko fay tare waaye faw du tee rek nañ génn fekk yi woowu loolu jigéen ñi nañ ci bàyyi xel bu baax jigéen ñu ci bari dañuy nekk ca waajal ñam ya ba daanaka ñoom duñu julli ci loolu nag nañ ci bàyyi xel bu baax dañuy julli ci di fekkee yiw wa nga xam ne moo fay wàcc bokk na ci sunna itam bisu kori balaa jàmbee jëm ca jullikaay ba mu mos dara ndax mu bañ a wuuteeg ndax mu wuuteeg ne nekkatul ci koor mu xam ne bis bii tey moom nekkul ci koor mu ne lekk ay tàndarma te bu koy lekk mu nekk yu tóol benn wala ñett wala juróom ci ay tàndarma loolu la yonent bi sallallahu alayhi waaye bu dul tàndarma yi leneen lu mu mos rek ba xam ne wóorul rek loolu moom sunna la yonent bi sallallahu alayhi wa daana ko def te digle na ko bokk na ci itam li ñu sunnaal su weer wi jàllee biir weeru kori balaa weer wee jeex nga woor ci juróom benni fan toftal ko ci ramadaan tekkiwul ne da cee war a sës rek boo ko mënee baax na waaye fexeel ba daal balaa weeru kori wee jeex rek nga woor ci juróom benni fan foo ko fi wooree rek baax na juróom benni fan ci biir weeru eh, korite wi même bu sësaloo wut itam baax na waaye fexeel daal kor bu mu jàll mukk te wóoru juróom benn fan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku ko def day mel ne woor nga at mi yépp ndax benn suñu borom fukk la koy fay soo wooree weeru koor ba mu jeex buñ la koy fay fukki weer lañ lay fay kon at mi dese nga ci ñaari weer ñaari weer yooyu soo wooree ñetti fan benn bis bu ne day tolloog fukki fan kon ñetti fan yi day tolloog weer nga woor yeneen ñetti fan mu tolloog weer juróom benn fan yi kon day motli ñaari weer yi la dese woon ci at bi boo ko booleeg weer bi nga wooroon lu fay la ko fukk kon am nga tuyaabay ku woor at mi yépp woowu yiw nag ëpp na jullit bi mu di ko faat waaye nag bu weeru koor bi xasee jàll nag moom dutu ko dutu mën a bokk ci eh, ñu koy comptabiliser ak weeru koor wi boo bëggee ñu boole ko weeru koor wi daal mu mën a mottali at mi ci biir weeru koor wi nga koy def balaa jeex ñi ñaan suñu borom tabaraka taala mu nangul nu suñu koor nangul nu suñu taxaway te fekke loolu njeextal wéru koor bi te nangul nu mbolam suñu jaamu yàlla jigeel suñu bakkar faral nu suñu ñaawteef te lo waar nu ay ramadan ramadan ay at yu limu limu ci ak mbaxam ak yërmandeem اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين